That was his fault. Bye,

si rajo yi de rajo yi

la waaw mën na moo am si noonu di jaar ak Papa Sow loolu tamit ñu ngi koy jaar bu baax a baax mën na waa des années mu ñëw ñu daale kii Damer El Hadj Dieng moom ak Papa Sow ñoo dugg si noonu ñu xamaa ko mbooloo mi ak waa Grand ndax ñu ak bu rafet a rafet ngeen bokk ñu ngeen di liggéey waaw Brise de Mer di xale bu yaru Brise de Mer xale bu funke sole bi papa bi paas Brise de Mer ku xool ci réew yi gis ko ñu

du ñàkk am kàddu yoo xamante ni suñu doyen bi daf koy jaale incha allah bu ñu tolloo. waaye ñu waatam bu ñu demee ba kenn waxul nga daal di yokk waaye ñu waaw baax na bisimilah di leen jaar. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala. maa ngi leen di nuyu ñëpp ñu ngi fekk ak ñu ngi fekk. dañ leen nuyu seen professeur bu yar xale bu tey yàlla su amul combat mën nga dem liggéeyu sécurité maa ngi rappelé mu saa ko fekk si seet bu fa xewoon ndeysaan ma fekk muy liggéey ma ne ma di ko encouragé ko terrain de nii la affaire du làmb donc su fii doxul tamit nga làmb feneen ndax xëy na da nga nekk ci kenn famille te làmb di léegi gis nga ni mu tëddee ku ma am ndey laa ku ma amul ndey noonu la làmb tëddee tey su fii doxul rek fee dox champion nga def nga fi lu ne ku bëreeg booy ñaar bëreeg ay champion yu bare bare bare bare kon xam nga champion la donc ñaanal yal na ko yàlla xaare àjjana di leen ko jaale yéen ñëpp tey ji nee naa fii ku ne waroon na fee teew ndax xale bi nekkul woon ancien gloire su doon ancien gloire sax ñëpp ci waroon teew waaye nekkul ancien gloire mu ngi woon ci làmb ji di bay waaram bërki dem moo jaay la bëri bi ma ko xoolee muy bëree mu sumeeku ndeysaan ma gis ko muy bëree ah, sama da damaa jooy ndax li ma jooy loo mooy dama ne Brise de Mer ba ma xamoon ak Brise de bi ça brise de mer ba ma xamoon ak brise de mer bi ça fait deux mu nekk gor bañ ko koy yàpp ba muy bëree wéeru wax na ko wéeru ñi ko jegee wax nañ ko wéeru waaye lan moo ko tax a bëree loo jom fulla fayda bëggul ku ko yàpp ndax su ko neexoon def ne ay moromam waaye def ko ku gëm yàlla la ndax lii mu def ni ku gëm yàllaa koy def wéroo bañ ko la yàpp ndax lan la da nga ak say nawle ñoom xam nañ ne wéroo ñi ngay ànd xam nañ ne wéroo waaye lan moo la tax di bëri jom fulla fayda ak ko la yeb moo tax nga jëw euh, remplir sa contrat ah tubaarikàlla maa sha Allah ñun de rafet nañ ci njort xaw ma fenn waaye làmb ji moom amee bor ndax bor ba loolu ameloon remplir na ko doo ko dem wuyu ji borom kon nag ñoo koy ñaanal yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko malaaka yërmande teeru yàlla na ko xaadim rasul teeru te màggal gam doon dem fii nag ñëpp fi waroon teewaa xale day dem waroon a teew ndax ñu ñëpp ñoo bokkul ndey ak baay bànneex dañ ko war a bokk naqar dañ ko war a bokk ndax ñun ñoo bokkul waar wi bay man de su ma xamee làmba tax ñu xam ma ak keneen ak keneen kon nag fii ñëpp fi waroon a teew ndax ñoo bokk ndey ak baay bàyyi di gën a bi di demee ñii di bàyyi ñii c'est pas normal du dëgg du yoon almaam la man xarit ñëpp fi waroon teew man su wax teew teewal naa fi Guédiawaye yëpp maag Aliou Seydou rek def nañ déplacement ñëw na teewal nañ waa Guédiawaye yëpp ñoon gërëm grand champion nag Modou Lo gis nañ délégation bi mu def ñoom Papa Sow euh, ñoom boo ñi mu àndal ñëpp vraiment ñoo leen gërëm di leen sant ndax li mooy àdduna li mooy àdduna fii la dëkk de parcelle la moo loo dëkk euh, fii la dëkk Grand Midi tey mu def déplacement ñëw ak délégation vraiment ñoo ko ci gërëm di ko sant ndax li mooy ànd ndax ñoo bokk teen bi ñoo bokk teen bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp di gërëm mbër yi fi nekk yëpp mbëru Grand Médine ak ñi mu fekk yëpp ak supporter am sant ak di ko jaale mbokkam tamit fameem soxnaam sërëm yi magam yi ñëpp ñoo ngi leen koy jaale da ko yàlla xaare ak yal na ko yàlla xale bu yar woon la nag